صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر الحمد لله aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi yi ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel ci wer bu tedd bi ñu ne ah di len jaajeufal ci top bi ngeen top tele bu mag bi di lugare TV ah di wax nak tay ñu ngi fi ci ben barak di ñew di magal ci ledu weru safar ñu and sek Serigne Ndiaye Basmala di borom satisfait ou tey nag moom moo woote pour ñu santale yàlla mi nga xam ne Serigne Touba euh, radiallahu anhu moom moo ne bu weer bi tero tero nañ ko jàppale ci ñu santal ko yàlla a ah, ginnaaw bi mu waxee ci bayitam boobu mu di xarajtu yawma sabti samaniina euh, yawma sabti samina asara li xidmatil muxtaari fii sëhri safar ginnaaw bi mu ko waxee nag mu mel ne Serigne Ndiaye Basmala loolu daka daka dégg avant ñuy dem nag ci bis bi mu di le 18 safar mu def benn yu tedd yi xam naa ni si kanam dina ñëw ci ginnaaw bi ñu tàmbalee ci alquranul karim yéen a ngi koy gis mbokk yaa ci buñ jugee ci alquranul karim bi dina ñëw ci xasida yi dinañ fi jàng ay xasaayit yi nga xam ne Seyxul Xadim moom moo ko bind buñ ci jógee dinañ ñëw tamit ci lenn li nga xam ne Seyxul Xadim moom moo ko bind dina am ki nga xam ne moom lañ ci àndal ci waxtaan bi mu di Oustaz Seex waaye buñ ci jógee dinañ bàkkaat waat kañaat Seyduna Muhammad moom mi nga xam ne moom la Seyxul Xadim moom la wax ni moom mooy xaadimu rasul moom mooy mbindaan mbindaanu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah ñu ànd si nag ak Serigne Ndiaye Basmala borom centre Matlabul Sifaay xam naa mbokk yi kon ngeen xaar ñu tuuti rek sa allah ñu dugg si mbokk yi xool par euh, par kenn kenn par kenn ñu interview ko ñu wax ñu ci bis bii di safar waaye ñu wax ñu itam ci Serigne Ndiaye Basmala borom xam-xam bu leer bi kenn dootu ko présenté ci àdduna ndax daanaka àdduna yëpp wala boog ñu gën a bëri ci àdduna xam nañ kan mooy Serigne Ndiaye Basmala mi fii ci benn baraak moom mi nga xam ne dafay yëngu ci wàllu hémorroïde ak wàllu néew kàttan yàlla may na ko ci lool li ñuy wax innal fadla bi yadillahi yutihi man yasa wallahu zul fadlil azim moom Serigne Ndiaye Basmala yàlla dakaa dakaa cërale ci wàllu boobu noonu moom moo xool xam-xamam moom moo xool ni mu séddale mu daal di koy séddale ci wàllu xam-xamu émérite ak wàllu néew kàttan yàlla baaxee ko ci lool kon si kanam nag dinañ dugg ci waañ bi dugg ci ay mbokkam waaye dugg ci ay xaritam waaye dugg itam ci ay am di jàmmem ñu wax ñu ci Serigne Ndiaye la waaye non seulement tamit ñu waxtaan ak ñun ci Sayxul Xadim mi nga xam ne moom moo wootee eh, bisu màggal bi di le bi eh, di eh, le 23 bii di ñëw incha allah ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu may ñëw ñu fekkee ko ak jàmm yàlla yóbbuñu ci ci jàmm ñu dem ci ci jàmm yàlla def ci sutura ak xéwal kon euh, ndoy boo paree rek ñu daal di incha allah xool teewlu alxuraan bi suñ si noppee bu jàngee xatmi ba pare ñu doora mën a dugg ci waañ bi kon ndoy ñu teg foofu suñu baaraam ba ci kanam incha allah. نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الا من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المصلات وكفر بتلاوتي عن السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من شيء أو نسيان أو تقريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما انظرته أو تعديل عند تلاوته أو قسم أو زيغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان فاطلبه منا على التمام والكمال والمهد من كل القلب وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تحكم لنا بالصبر والضلالة والطغيان ونبينا حبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وعملنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكر ومن أكل الديدان وبين وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وفق ميداننا بالحضنات وثبت أقدامنا على الصراط واسقنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا تجل اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلال أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة وضليلنا في الخير ومنقذنا في الفتنة واقسمنا به من الزغي والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اهتم بالسعادة أهجالنا وحق بالزيادة آمالنا واقرن بالعافية غدونا وأصالنا واجعل إلى رحمتك ومصيرنا ومآلنا واترك سجال عفوك على قلوبنا ومن علينا بستر عيوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك تقواك زادنا وثقل بك ذكرنا واعتقادنا وامن لله الجوع والقول بلادنا وصائد بلاد المسلمين عام يا رب العالمين اللهم بلغ صواب ما قرانا ونور ما طلعنا لروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام ولارواح ابائه وامهاته وازواجه وذرياته واصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين الله بلغ صواب وأقرنا ونور ما أقرناه هدية الواد ورحمة متصلة مثل على عبدك وما في بحجاج اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم بلغ صواب وأقرنا ونور ما أقرناه بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام على أرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذريات وأصحابه رضوان الله تعالى عليه أجمعين وعلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وسائقنا على أرواح جميع المسلمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد قاتل النبي وإمام المرسلين ورحمة الله وصلى على سيدنا محمد وعلى الحمد صلى الله عليه وسلم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العدل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين الحمد لله آمين يا رب العالمين ما شاء الله yi comme niñ ko waxee sànq rek saa jàng nañ alquran bi ba noppi jàng xatmul quran bi tey nag ñu ngi uh, toog ay mbokki Serigne Ndiaye Basmala ah, du ñàkk nag am lu ñu mën a seede ci moom comme ni ma ko waxee sànq ci xam-xamam bi nga xam ni yàlla moom la ko dénk te mu di di ci dimbali jaamu yàlla yi ba pare nag li ma gën a neex ci moom mooy satisfait ou remboursé bu muy néew na ci sëriñ yi ngay def yi ngay dem ñu la ah moom kat bu ma la teretee bu ma la fajalee te gisoo ma delloo la sa xaalis ba fa dëgg fa yàlla néew na ñi may gis ci sëriñ yu ci ci réew mi waaye rawatina àddina kon ci moom rek ay déggee baatu satisfait pour rembourser kon yow ñi nga xam ne yaa gën a jege sëriñ Ndiaye Basmala nga nekk ay mbokkam nga nekk mbokkam rawatina nag su ma juumul nga nekk gorom kon li alxuraan di wax wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa waaw nit ki nag li nga xam ci moom dong li nga jëflante ak moom dong moom képp nga mën a seede ci moom tey bu ñu doon loo ñu wax ci jëmm ci jëmm sama goro suñu frère la ñu ko baax ñu ko tedd ñu ko social teg ñu ko bëgg doomu aadama ñoo mën a wax sama bëri na man na ko mën a wax da ngay wax sachet remboursé defal la gisoo mu remboursé loolu dëgg yow ko te taxaw ay famille dëgg famille taxaw ay famille xeebul kenn man dëgg fa yàlla bu gis ko ba léegi dëgg fa ne yàlla moom xam ne nit ku baax la nit ku honnête la nit diisoo la te euh, lu baax daal ma lay wax ne nit ku social encore ñu nit ku baax mu war a ñoom mooy soxla mais wallaay asim dërëm moo ko def kuy baax nag ku baax dañ wax ku def lu baax it dañ wax dafa def lu baax dañ koy wax bis bii nii yàlla na koy def at yu bëree bëree bëri yàlla na yàlla teral yàlla yàlla yokk mën nañ bu balaa déwén nag yàlla may kër boppam mu defee ko baax la ku tedda la yàlla amoon si asalaamaaleykum. fàttali ñu sëriñ a baax ko defee rek euh, ñu daal di tuxu rek demaat keneen. asalaamaaleykum wa bi. ñoo ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la wax ne yaa ngi si télé bi di Lougaré TV tey nag ñu ñëwoon fii. ngir yàlla ak jëmmi sëriñ bi mu di Ndiaye la moom moo woote safar gi ñu ne mu di weer bu tedd ginnaaw bi ko bi sëriñ bi waxee ni nañ ko santale yàlla ci bis bu tedd bi waaye ci weer bi bu tedd bi di sëxru safar léegi nag yow euh, ginnaaw bi ñu waxee sa tur ah, nga fàttali ñu sa tur bu ko defee après ñu am lu ñu la laaj ci njaay Ndiaye la sëriñ Mbaye seen kon bu ko defee nag ah, suñ la doon laaj kan mooy sëriñ Ndiaye Basmala loolu ñuy wax ci Ndiaye Basmala. waaw asalaamaaleykum sëñ bi ñu lay delloo nuyu bi di la siyaar. Hmm. di la ñaanal yàlla tawfeex. Hmm. di wax ne daal képp ku fi ñëw daal yàlla na si borom aajo. waaye yaa ngi laaj lu doy waar. Hmm. xamante ne <laughs> xam naa ci mën naa wax lu bëree bëri daal. parce que comme doo ma si Ndiaye moom. macha allah waaw sunu borom am na am foo xam ne daal boole nañ si lu bëree bëree bëri. mën naa wax si moom eh, te tamit dina doon lu ma jafe. xam nga muy jafe. suñu borom dafa am fu mu ñu boole loo xam ne la. am na na may falu suñu borom la. suñu borom mooy dogal ay mbiram. ak ni koy dogalee. te suñu borom dañu booleel deret. mais deret sax dañ koo dàq. xaritoo bu doy waar am ci. moo tax muy jafe ci may wax ci moom. Eh. waaw loolu moom dina jafe si man trop. waaye daal yal na ko sëñ Tuubaa fayal boppam ndax li mu def nii nit ku tabe moo ko mën dajale ay doomu aadama ne ah sëriñ Tuubaa ndem dafa ne woon nañ ñëw sant la ko yàlla yéen bis bis tey tey ji di set août mu ne ñëw leen ñu àndandoo santale sëriñ bi yàlla tàmbalee ko fii nag jëm Tuubaa te wax dëgg yàlla loolu nit ku tabe moo ko mën waaw nee na suñu borom mi am fay di fay yàlla na ko defal lu kawe jotam lépp lu mu si séntu rek suñu borom defal ko lu kawe waaw. beneen bi ci wàllu faj bi muy faj dafa am baat bi ma bi ma xaw a remarqué te mu jaaxal ma te mu di li nga xam ne nag lu raar ci sëriñ muy baat bu muy wax moom satisfait ou remboursé damay gis ci moom day faral di bëri di wax ne képp ku ñëw ci moom te mu jëflante ak yow te sa aajo fajowul li nga ko joxoon dala koy delloo mu nekk lu raar ci sëriñ tey ji ci wàllu boobu noonu tamit boo ñuy wax ci wàllu boobu loo ñuy wax ci loolu. waaw xam nga comme li nga wax noonu rek loolu ku ko xamul doo ko déggee mën na la jaaxal mais ñun suñu borom dogal ñu xam ko xam lu ko suñu borom defal man du ma du ma duggee si laaj bi nu may ree rek ndax ñam faj gi lañ xam ci moom. mais suñu boobu dëxëñ na si moom loo xam ne moom kurus la gën a aay njaay kurus la gën a aay xam nga tey ñoom loolu loolu ñu gis mooy lu muy wax mais jëfam moo gën a diis loolu moo tax ma des fois duggee si laay fam gis nit di commenté man daf may def ay ree ndax ñoom lu mun dëgg dëgg dëgg ñoom faj bi bu fekkee lu ko yàlla may faj bi lu azaka la ci waaw ndax ndax du fekkee xale maam moo gën a doy waar course moom fi mu toog lay toog ak foo munti nekk muy faj say aajo loolu moom suñu borom dogal ñu xam si moom loolu moo tax des fois euh, du ma déggee yenn gars yi di commenté di sëñ bi dafa dëggu sëñ bi li may xamante ne moom xam-xamam romb na fi li ñuy gis ñoom waaw. Ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax ci kàddu yu am solo yi ci rawatina nag yow mi nga xam ne yaa ko gën a jege nga nekk ku sës ci moom te doo ko rek ni ko olof di waxee. kon nak ñu ngi lay jaajeufal bu baax xamna rek ñu daldi di mbokk yi ndank ndànk ah, ci bis bu mag bi yaakaar suñu bàyyi ji momit war sank ñu ngi doon deg ngeen di waxtaan lu neex ci Serigne salio sank ñu ngi doon bi ñu nekk si bir jëwri ñu ngi leen deg rawati na nak Serigne jaay Basmala organiser bis bis bu melni mudi safar te Serigne Touba radiyallahu anhu dafa waxoon ni nañ ko sante la yalla ci bis bi li ko tàmbalee weer bi ba keroog ñuy dem ci ci bis bi kon nag sànq ma dégg ngeen di wax waxtaan bu xóot ci Serigne Saliou waaye rawatina nag say sayxul xadim moom mi nga xam ne moom li xidmatil sahri safar moom liggéeyal yonent bi léppam yonent bi la woon tey nag ñu gis fi ñu Serigne Ndiaye Basmala ubbee safar gi alquran koo xam Serigne Touba xam alquran nee naa boo demee ca dëkk dëkkam bu tedd bii di Touba dinga fa fekk fu mu tuddee daara yi kaamil daañu wax ni moom daal woon toog bés te jàngul luñ ko lu mat juróomi kaamil moom góor googu te yi nag bu ngeen ñuy wax ci bis bii di safar ak lenn ci Serigne Saliou mbaa ci njabootu Sëñ Touba yi bu ngeen ñu si cofal lenn ñu mën see jëriñoo lan ngeen ñu ciy wax suñu baree nag ñu ñëw ci borom bis mi ci borom bis bi mu di Serigne Ndiaye Basmala kon ginnaaw bi ngeen ñu waxee seen tur papa ñu sàkk seen tur rek Abdoulaye Ndiaye. Serigne Abdoulaye Ndiaye waa di wax rek nu ma ko waxee léegi bis bii di safar ñàkkul na am na loo xam ci sëñ Serigne bu ma bi mu di Seyxul Xadim waaye itam ci njaboot gi loo ñi mën a wax ci ndénkaan yi nga xam ne bis bu tedd bi am na ko. di sant yalla di sant Serigne Touba mi tax ñu fi mom ndax Serigne Touba mom wak wax wax da ngay wax li nga xam yam fa waye do jot asaka ji xana di sant rek ah di bis bi bis bu reey reey ci mom ndax ñepp ma nañ ci mo ne moo woote ne ñëw leen ngeen santal ngeen santale ma sant nag ku xam ni la tax ñu dela ngay woote cant yaa xam lañ la defal ba tax nga sant loolu nag lu jar a xam la te dara euh, ca yàlla la jóge di delluwaat ci yàlla dégg nga ndax ku ku tedd kii yi nga xam ne bi moo tax ñuy def safar ji waat naa ci yàlla man de ay téeréem li ma ci dog damay toog léegi ba si fii may wax waaj ma ne ko waaw sëriñ bi moom moom ndax mbindaafun la waaye laajkat ba leen kon doon na xool ba si yàgg mu ne ko yow mbindeef nga yow yàlla nga wala mbindeef nga mu ne ko déedéet mu ne ko minallaahi ilallaahi rek sëñ Tuubaa léppam ak woyof la ko doon léppam ngërëmal yàlla ak yonent bi ci la doon dox génn ko mës koo génn te ku ko mës a bëgg a génn ci loolu mu génn ci yow mu ngi laay ila laay jóge ci yàlla di delluwaat ci yàlla moo tax yal na yàlla fayal ñu ko ah euh, li ma fàttee sax moo di yow euh, avant tout naa la wax asalaamaaleykum sant naa la ci ñëw bi ngay ñëw ak oyof bi ah, ak yar bi ak teggin bi ndax depuis ce matin ba nga jaaree fii dangay ñëw waaxu fii ñëw jox ma loxo loolu lépp ñun comme jaar nañu ci ak fu ñuy yaree bu ñu gisee ku ñu yar dañ koy xam loolu kontaan naa ci yow bu baax a baax a baax ndax bu ñu la yarutoon mën ngaa gisee neneen kon ñoo ngi ñaan bis bi yàlla ko yàgg fekke te lu ñu ci def ak yéene sëñ xam na yàlla na nu ko yàlla li ñu bëgg yéene yi yàlla sëñ Touba àggalañ ko fi ñu ko fi ñu ko bëggee. waye dal borom bis bi dal man na ma wat ci yàlla ne nit mënu ko fay xana da ngay jëm rek ndax ko am jam mom la ko war garam bu legi mom la bam mu mom la won man lima la wax man na ci am lu leer leer leer ndax dakaru gi dong ñetti fan yoo xam ne bii fanaan ko fi néeg suñ ko dugalan moo fa wax señ tuba mo ne bi ma duggalé ci so so le sama tànk bu ma nee diis rabbu jàmm waaye nag na fa toog na fa ab diir maam jaara fekk ko fa sëñ Tuubaa nee na kera maam na ma loo xam ne bii kenn kenn du ko xam billaahi sëñ Tuubaa moo ko wax mu ne maam jaara déy na ma fa ñetti fan yooyu ma fa am maam jaara déy na ma loo xam ne bii kenn du ko xam kon sëriñ bi ñun daal liñ ci bëgg wax lépp suñu xam-xam yéegu ci waaye suñu yéene yegg na ca waaye daal képp koo xam ne bii yaa ngi xëy ci moom di gont ci moom di dox ci moom kanam nga yëm do am tanki gënaaw tànk kanam rek nga yëm kon nak li yàlla ko yàgg def yeen yalla def leen ay barke li yëngu yi ci barke Serigne Touba xol sedd na guy ah. ndax ah, yaakar dafa tiis waaye bëgg nañu xam ne ki ñu sonal luñ luñ luñ luñ luñ luñ nañ ñaan kàttanu yàlla dañu may wérg ak kàttan li rek waaye loo def ci moom doyut tayit am na pay nag ndax moo ne walaw yan suru nii wal xal bu tadbari yi fil bahri wal bahri sàllafan bi laa dërëri mun mu ne yaa malikal mulki yaa man jàlla al xawadin iram jami al wara yaa haadiyal radaha dégg nga wax sëñ Tuubaa wax te gis nga sëñ Tuubaa amut lu mu yëngu loo xam ne bii doom yi taxal na kenn taxutoon mbindaa ful yeeg taalibe bi doo nga taxal mi doon sonn pour ñu jariñ ñoo ngi ci léegi ci ci ñoo ci ñun ñoo ko taxal a gàddaay di dem waaye du jëmi boppam ndax kat ci asiru wax na ne noonu biñ may yóbbu dañ maa jàpp ne dañ may yóbbu génne ma au Sénégal ah jàpp ne man ab lañ ma jàppe fekk man ndekete ñoom yoon xamuñu ne liñ may yóbbu may dem dañ may dimbale ji ci yoon yi wax war naa faa dem te mun maa dem te ñoom la yàlla dogal ñu war ma yóbbu ma dem kon daal Eh, yalla yalla def ñu gëna mëna gëna xamal kuy seigne touba gëna mëna topat seigne touba ndax lo wax wax wax wax faaw nga am lo fatte wala am lo bëgg wax ko mëna wax lé léeg nga gis waxal bi nga may melni man du jang du def dara waaye xel mi dana rafet rafé goo xam da lay yobalé gi yow bi nga xamné bi xamu la ñooñu nag man ñu lay wër ñi nga xamné dañu bëgg sëñ touba top sëñ touba japp sëriñ touba ndax it nag def ñu ko daf ñu daf ñu koo liggéeyal Mbàkke yal yàlla taas ñu ci barkeem lu ma feex wax daal bu fekkee ne bii dëng ah xamal bëgg a wax la rek waaye du am xam-xam nag ñoo ngi lay ñoo ngi lay remercier yow sëñ bi. xam naa ne Père Saliou. li fi góor gi wax ci Serigne Touba. ne ni moom moom bëgg na. ak El Hadj Ndiogu Ma Malick Dieng moom mi nga xam ne moom moom moom télé bu mag bi moom it léppam Serigne Touba la. ak Xaaji Daam. mu di directeur u Lougaré TV ñoom ñëpp seen lépp Serigne Touba kon bu ñu déggee sa waxtaan bi daañ ci kontaan lool kon ginnaaw loolu nag Serigne Ndiaye Basmala mu di sa doom buñ ko mënee wax moom it du ñàkk ne am na li nga xam ci moom nga war ko ko mën a seedeel ci lu rafet waaye ci wàllu dimbali nit ci wàllu dimbali doomu aadama waaye ci wàllu tamit sonn ci mbiru doomu aadama Serigne Ndiaye Basmala boo ñu dee wax ci moom loo ñuy wax ci moom. waaw koy Serigne Ndiaye Basmala. maa nga dëkk fee ci maa nga dëkk fee bi nag euh, tali ba fa dana marché benn baraat. ñu may ñëw fii boobu euh, dama extrait dix heures jot. moom moo ma jaral ma jóg déplacé wu. àgg naa foo xam ne fi mu toll sama tànk si li muy tuuti tuuti bu bu jógee bay dox am na ci lu muy dox bu toogee am na lu tax mu toog. kooku duma ko biral kenn yàlla koy biral dama bëgg a foofu ne Serigne Ndiaye moo ma jaral ma jóge kër ga dox samay tànk ñëw fii am na lu mu doon demee lañu doon dëkk dëkk dëkk dëkk ah mën naa toog foofu nag ma toog fii Ouzin nag doxal waaye Serigne li ma gën a kontaan ci moom sëriñ xale la benn ñaareel bi yaru na ñetteel bi ku dendal. defal na la ngay mag ngay gone dafa na ko defal na ko te bu koy def du bëgg kenn ku ko xam koñ bi koñ bi fii mu dëkk nii fii mu ñëw nii suñ koñ la jógee ñëw fii waaye waaye. doguñu la sax mel ni moom lañ may siñaale ni ma ngi ci yoon bi mu war a ñëw kon xam naa ni incha allah ci kàdd yu rafet yi yi ngay jot a seede daan ci ñëwaat ñu daal di koy rek. incha allah si kanam tuuti ñu ñëwaat àggali ko. amul benn problème ñu sant gërëm la ci wax ju tedd ji. waaye tamit ci mbind mu leer bi. Mm-hmm. ñu ngi la ciy sant bu baax di la ñaanal yow yàlla gën a dolli sa tawféex. gën a dolli sa sutura. amiin ñu daal di jëli. Serigne Ndiaye basmala rek. aywa xaj ndooy. ci bi Serigne Ousmane Ndiaye basmala. mook waa centre Maktabul Sifaa boppam ñoom ñoo koy ñoo moom ngeen gis noonu. sax da ngeen gis da ngeen moom ngeen gis noonu ñu koy teeru mu di.

daal di koy gunge di ànd ak moom tey ji moom Ndiaye Basmala la ñuy wax ci moom. waaw tabaarakallaahu wax naa ne la Ndiaye Basmala léegi international te wax dëgg yàlla Ndiaye Basmala ko doon nit ku kilifa kenn du naa tam waaye wàcce ko xam nga tey li def nii di santale seen Touba comme ni ko nu ko comme ni ko diglee tabaarakallaahu dafa dafa am solo kon Ndiaye Basmala jaar bi da koy war a bari ci réew mi tabaarkalla kon am na solo xam nga nag centre man la bu si waay doon centre boo gisee ñii ak tabaarkalla jaay ba sonal tabaarkalla léegi war nañ koo jóg ci biir réew mi xam ne kenn du jaay ba sonal jërëjëf. waaw sëriñ bi loo ñëwaat ci Ndiaye Basmala sëriñ bi jërëjëf sëriñ Ndiaye Basmala rek la ñuy toog waaw Ndoye kon mu ngi noonu ñu bàyyi sëriñ bi xaw a dallu tuuti si kanam ñu ñëwaat ci moom incha allah. وَلِمَنْ بِهِ يَنَاجِي مَا يَرُوحُ رَبِّ الْمُنَعِمْ وَبِهِ إِبْرَاهِيمَ لِخِرْ جُنُوبِي وَكِرْنِ الرَّجِيمِ عظيما وكن بموسى وبجاء عيسى وخير دنيا واخرى موسى وبمحبة رسول الله عليه خير صلوات الله صلى عليهم نوهب ايمانا قد سقط الاسلام والاحسانا بقربة الصديق والفاروق ثم الإخلاص والتوفيق بحق عثمان رقم نورين وبعلي الوالد ستين وفي وفي دنيا مع البدايا النور والحلول والمزايا بحق طلحة وفي زبير وحق سعد سيدي من وحقي ما بحق عبد الله المجيد من ولد الحجاج الترجمة الكريم بحق Kedahin saja di loob ng kairi Dihormati Tayyibi Ibrahima At Imam Ibinal Kabiso ay din ang Bibin ni Binal Wasaki at kumalwag si Simin Dai Suhen wajah rabbi Abitar Dai Dihormati ng kakadadi di Kabi Zubayri Awli ni Makasini Kabi Aminin Mungkinin ang para Hindi ang pangaran Wasyakan wa kalara Bihakil kainil Mujahidina Alayin Quran Hindi ang tamasunan يلقى قرآن بحرمة القاسم ثم قارئه ستي قفوى المجتمع مناهجا وفي أبي بكر وعبد الله ستي فضلا ماله تنائه وفي سليمان حين كيد المعين وكيد خيره وكل يا معين ومنا هدية هد الأمل في العلم والآداب ربي والأمل لأمنا عائشة الحلم يما يسرني في الأراضين والسماء لأمنا قفة قل بين يبد وبينما يجر سوءا ونكد لأمنا زينب زي المازر مني وما فتن وجعلني وزر مالك وصافع وأبي حنيفة وأحمد للسجدي بجاه جبريل سجب سؤالي وبلغني مبرق الرجال بجاه ميكائيل قبل النعمة ونفي جعل بسر قيس الكرامة بجاه إسرافيل بالعصمة وتكفني أول يوم الأمة بجاه إسرائيل كل يا جميل طول حياتي وكذا بعد رحيل وجعل رسولي لمن يطلبه شهادة داري ولي واغفر لي به وليجب وللذين عاني بتسميني بالامر ورضوانه وفي السعاده والارتبايا والجمله الافواه والغنايا وبالنجاه من سوء الواسع وسكرات الموت ربي والحساب وبالبشارات وبالسرور عند المماتنا وفي المشهور وسليا وسلما على النبي وآله مع سعاد النجب واغفر لوالدي واغفر للجميع اهلي وجملتي سلامي يا سميع وبلكل ذي تعلق ربنا وهبنا سعادتي يا ربنا وسبنا وقهنا وكلنا وهب لنا قدرتك تعمير ربنا وصلي على النبي وسلم واهد به حاجة كل مسلم يقول عبد الله وهو أغرب خديم أرشماته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم قال للأمان الحمد لله على كتابه مع سفيع المذهب بالكتاب سيدنا محمد خير الورى من خادم خدمته وصورا ثم صلاة عليه وسلام على الذي مني له أقلام سيدنا سفيرنا المقدم إن الذي تذكر لدي قدمي محمد وسيلتي وجنتي عن العادي والأذى وجنتي وعلي وذابي الأبراري بالخال والمآل بتكراري هذا وقصدي خدمة تقر عين النبي بها كما تمر دعوة من سلام خدمة تقر مصطفى به كفيت معذر أدركت من رب البرايا خدمة لمن بجاي كفاني صدمة أحمد على خروجي من درر وكل سعيد وعنائي وعرر أذكره شكرا يجر زيدا بسر ولا يجر ناوير كيدا أبدا وشكرا لازم برورا ربي الورى وزادا غرورا فكنت نازما لذي المقدمة مصليا بها على مقدمة الذي كوني خديم الأزنها وأنا فوز بالمقارم الأزنها ملتمسا من مالكي أن يد بها بها الذي يريد أن يد بها جعل الله البجاي المصطفى صلى عليه بسلام يصطفى نظما مباركا يجرى عذابا كما الذي كابدني عذابا مرجوزة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراخب عاجل كعاجل لراغب قد ابتلبت للمراد قائلا مع سماء بقية أو قائلا إن الله جاءه ملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وسلم علیہ تطیم ربک ربی وصادق اور خیر بلوم و بین یدک مسلیان مسلمان علاقہ خیر بریدک حائلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمال کمال ابتا کٹا علمو بس الذي الحق من الحق المبين كان ما بان وما ليس يبين علم لي ما كان قبل الخلق من كان لي بكرم وتلقه لم ينو ذاتي جالب نيرانه او جالب نارين في نصرانه لم يرغني درر نار دنيا واقتصد الباقي بغير سنيا ملكني ما لم يبيعني وخادني بقاؤه بالمني كرامتي كتاب من رفاني به إلى الجنان مزنفاني مقام ما تلقدنا نفوسا كل سوى يساق وتلبيسا إلا سوى أنه انتهاء الموت نهى نفوسا كلها بالموت لم تكن مقدمات الموت وقد رفعت بالبقاء صوتي وقت الذين كابدوني بدلوا بالموت نفسي ما لغاني جدلوا تجي عن الموت بقاء الله أبغاني الله لوجه الله كفاني الباقي ممات الصمد نفعني ولم يدرني ولا يدرني كل علي قولا تسعني الأمراض والممات بقول عاصمي من السماد علمني بقوله إليا البيت الرافع بي المرضية لا سك في كوني بالأمين فيه وبالكتاب والأمين ملكني الأمين والأمين كتاب باقي جاءني تامين الله من كل كريم أكرمه ملامه خاد الله تكرمه أسم له كل قال إيماني ولا سمي لسان لي رماني وجوهي بزغ الصبر بلا كفران وفايزا بو مع النيران وجوع الصبر بلا كفران وفايزا بو مع النيران Yeah. Serigne Ndiaye la moo woote ci bisu safar gi léegi nag euh, dañoo bëggoon ngeen wax ñu dara rek ci njaay Ndiaye la mi waral bisu safar gi ginnaaw bi Serigne bi waxee nañ ko santale yàlla ci bis bi moo xam li ko dalee ci gileem ba ci ginaar mi ci gën a tuuti kon nag Serigne Ndiaye la dégg loolu daal di tàmbali moom ci weeru safar gi ba keroog nag ñuy dem ci bis bi Serigne Ndiaye la leen ngeen xam ci moom. bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di bala ak tey baale Ndiaye Bas ma la wax dëgg yaa yàggaguñ ci koñ bi bi mu fi ñëwee léegi yàggul mais xam nañ ci moom baax xam nañ ci moom yitte fu mu romb day nuyoo day maslaa day jàmmante ak seen waa kër ñëpp ci lu baax lañ ko xam yàggagu fi wax dëgg yàlla waaye waa koñ bi daal jéppuñ ko kontaan nañ ci moom mu ngi yor lu baax li ko def li yoonu murit santaane daal moom mi ngi ci te ñëpp la boole nag amul tijaan amul xaadir amul laayeen kum mu romb dina nuyoo yow kaf ak yow wax deug yalla mbax lañ gis ci mom ta mbax lañu wan ndax limu def ci koñ bi ni baye bo mané première fois mom moko fi massa def tek di woote safar tek say mbana di togg di jox nit ñi ñu lek te ku sañon ku ne da ngay togg di jox say morom mi dëkkandoo ñuy lek loolu rek jarna sante yalla ñukoy ñaanal nak yoon wi mu commencé ni mo xam fa bëgg yegg yalla nako fa yalla yeggale ci barki yonenti ñun yaay dekkam nañ ci waaw ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax Ndoye kon ñoo ko déggandoo dañuy wax ne li yonent bi sallallahu alayhi waxoon rek eh, Jibril daal woon dañ di ko dénk ci wàllu dëkkandoo ba moom yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yaakaar ne sax bu génnee àdduna dëkkandoo moom moo koy romb kon nag njaay Ndiaye la moom ñu ngi koy jëfal bu baax ci ñu mu dëkkandoo ak ay dëkkandoo kon loolu rafet na kon ñu jàllaat si keneen rek Ndoye bu ñu paree ñu xool ci ñett ñi tabaarkàlla kan mochi ci ñu ngi lay nuyu di la di la laaj sa tour no tudd. man day la tudd Ndeye Senghor la tudd. soxna ndey Senghor. ñu ngi lay nuyu bu baaxa baax di la di la laaj ci Ndiaye Basmala rek euh, lo xam ci mom ci lu baax. de man ni ma ko gisee ah neex ma lool dama romb auto bi lire ko rek ne ah Ndiaye Basmala mi mom mom Basmala mom boko dege ci lu neex la allah ko bëgg ñepp ko ñepp ko bëgg. safaram bi nag dañoo xëy rek ñëw ci safar bi waaw moom moom kenn jeppiwu ko ci koñ bi day nuyoo day wax ak nit ñi day kaf day ree yàggu fi nag parce que dafa dëkk ak sama mbokk muy Fatou moo tax ma miin leen xam leen lu dëgg yaayam ñoo sant fay te sama yaay fay la sant waaw moo tax ma ñëw rek bëgg meer bi sama romb ci suba mu ne safar bi doo ñëw ma ne ko ah kay def li may def daal di ñëw lu dëgg ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi te yàlla may ko lu muy ut yëpp ci safar bi yal na ko sëñ Touba Faye ak sëñ Ibra Fall dëgg merci jërëjëf jaajëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ndoy kon bu baaxee rek ñu gën a duggaat ci ci ci gaa yi ñu gën a duggaat ci gaa yi rek ñuy xool suñu ñaari disquette yi te tabaarikàlla ñoom ku ci barkeelu rek bu ko defee ñu mën a xuusaat ci mbooloo mi ah kon yaay daara ñu ngi lay nuyu bu baax. maa leen di nuyu bu baax maa leen di fay. waaye nañ ci jàmm baax yéen siyaare baax nag bas mal bas nja ma sëñ bas mala moom lu ma ci wax rek doyu ndax sama doom la te doom ju baax la wax dëgg yàlla bëgg ay rakkam bëgg ay tantam wax dëgg yàlla bas moom mënuma man su ma waxee sax damay kii ndax wax dëgg yàlla man daal dama ko ñaanal gudd fan rek ak wér mu toog ba sut waajuram bi aw fan ci barke seexul xadim wax dëgg yàlla yaayam moo ma bëgg daf maa def nag comme yaayam ndax maag yaayam moom se nekk nañ ci kër gi nag dara ñaawul lépp dafa rafet barke Serigne man nag mënumaa wax wax dëgg yàlla dama koy ñaanal gudd fan rek ak wér ak la ci bark Seexul Xaddim mboolem lu mu def ren jii rek yàlla na man lu ko ëpp déwén ci barke Seexul Xaddim man nag dama koy nuyu rek di ko siyaare nag. jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ah Ndoye kon bu baaxee rek ñu daal di dem ah, ci waaw ñu daal daal di dem feneen. ah ñu ñëw ci ku jekk ki moom mooy yaayu waaw waaw baax a baax maa ngi lay fay bu baax baax noo tudd ak noo sant man màgget ba laa tudd màgget ba waaw waaw tey jii ñu ngi nii ci safaru sëriñ Ousmane Ndiaye Basmala wala sëriñ Ndiaye Basmala ah di wax rek loo ñuy wax ci moom ah safar gi da neex na macha allah Ousmane moom sama waay la sama xarit la sama nit la sama lépp la Ousmane mënu maa wax si moom su may wax si moom sama xol day fees ndax sama waay la sama nit la safar gi neex na lépp bëri na macha allah ñu koy ñaanal gudd fan ak wér lu mu bëgg moo ko xam daal na ko defar mu koy def ay ati at waaw daal am si lu may wax si moom. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax wax di am ci mbégte mbégte bu baax ci yow kon. macha allah doy baax na. voilà kon ñii ñooy waa Kaane gi waa tim nu mu tudd nga ni. ndoy ñoom ñooy waa tim soosu kaani xam naa ni Père Saliou moom dina yittewoo saaru mbana gi bu baax a baax wala xaj daam lañ koy jox DG waa soxna waa tim soos kaani ñu ngi leen di nuyu ñun waa Lougaré TV ñoo woon ànd ak yeen ci bisu safar gi ñu ne ah, ñu ànd si ak Serigne Ndiaye Basmala Serigne Ndiaye Basmala nag ku ko xam xam ko ci social ku ko xam xam ko ci yaru ku ko xam xam ko ci modeste waaye ku ko xam xam ko ci xam-xam waaye ku ko xam xam ko ci ragal yàlla moom Serigne Ndiaye Basmala buñ la doon laaj moom mooy kan loo ñuy mën a wax ci Serigne Ndiaye la maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waaye ñëpp wax dëgg Serigne Ndiaye Basmala moom fi tuxusee yàggul mais jàmm ak salaam rek lañ ko xamal ak soxnaam Mariama baax lool yaru am yitte ci ñëpp waa ñu ngi koy ñaanal bisam bi yàlla na nekk ay baasi baasi baas bu déwénee ci kàttan yàlla ak baaxam ñëpp fekke ko. macha allah. macha allah kaani gi kon ndooy ñoom ñooy rëgal kaani gu saf gii nga gis noonu ak ceeb yu yu tabaarikàlla yee ñoom ñii waa kaani gi ñoom ñoo géré waañ bi kon waa ñu ngi ñu ngi ci safar gi ba léegi rek nekk ci waa waañ gi ba léegi ah, ci bool yu yaañ yi may gis fu mu ne nii moom ndooy tabaarikàlla yàq yàqant na lool añ bi pare waaye ñu ànd ak euh, soxna um-, Oumy fay mu jege lool mu nekk ku jege lool Serigne bi Serigne Ndiaye la kon yow mën nañ ne yow am noonu li nga xam ci Serigne Ndiaye la bu baax a baax comme que nee nga yow yaay yaayam loo ñu mën a wax ci Basmala ci social bi waaye ci xam-xam bi waaye ci ci ragal yàlla bi ci lépp rek loo ñu mën a wax ci moom moom Serigne Ndiaye la asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu leen fay. ah di wax Serigne Ndiaye Mbass ma la kontaan ci moom rek ñun de ay yaayam lañ ñoo ko yaayam a bokk ndey baay waaye dañoo kontaan ci moom ndax moom xam-xamam bi da koo sellal te lu baax rek la ci liggéey bëgg na ay ndeyam bëgg ay mbokki bëgg ñëpp ñëpp a ko bëgg ba ñut kenn Ousmane jàmbur yi sax ñoo ko gënal ay mbokkam moom lu baaxam li yemale ko ci kenn xam na man jaareem laa jóge te njaareem moom moo waral safar am na nu mu doon mel du ma bàyyee njaareem bi ñëw fii ndax njaarim ak Touba téeméer a koy paas ma lagge foofu moom ma ko jaral ndax dafa baax yëg nit bëgg ñu lu ñu bëgg xanaa mu bañ koo yëg mais lu ñu yëg rek moom bañaluñu dara barki yàlla ñu koy ñaanal ci borom màggal gi li mu bëgg moo ko xam yal na fi tër ay gëléem ak lu mu bëgg ci kàttanu yàlla ñu ko koy ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér mu uuf ay rakkam uuf ñëpp ñun daal dañoo kontaan ci moom ba mënumaa wax man mënumaa wax ci moom lu bari parce que dama kontaan ci moom dama koy ñaanal rek borom màggal gi fay ko lam ci bëgg moo ko xam yàlla na ko sunu borom fay loolu lañ koy ñaanal ñu fekk ko ay déwéni déwén déwén kontaan nañ ci dara manqué wut macha allah Ndiaye Diatta lépp bu baax macha allah. mu ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax di kontaanaat ci yow bu baax a baax. xaj ah, bu ko defee ñu jàllaat si keneen rek daal di tabarkal daa mel ne sax gars yi dañuy yëfu séeréer siñ ndooy tur bi Ndeye Fatou Ndeye Fatou yaa ngi ànd ak waa Lougaré TV di moomeelu askan bi ah, ñu ñëw nag ci safaru Serigne Ousmane Ndiaye Basmala ñu gën koo xam ci Serigne Ndiaye tey jii loo ñu mën a wax ci moom Serigne Ndiaye Basmala waaw Serigne Ndiaye Basmala moom li ma mën a wax ci moom bëri na ndax maa ko jur te jaaxaluma Serigne Ndiaye Basmala doom ju baax la ku yërëm yaayam la ku taawu ay rakkam la ba baayam dëddoo àdduna ba tey yaayam jooyul ma kenn fekku fi yaayam moom moo taawu yaayam taawi rakkam taawu jàmbur yi ñi nga xamante ne ay jaamu yàlla lañ sax da leen naa taawu ku baax la damaa mën la wax nag waaye ku baax la yaa ngi may laaj ci koo xam ne lu bari war naa ko mën a wax ci moom xañ na ñàkk a mën a wax la rek. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yu seede yi ak Ndoye ah ñu ngi am mbégte bu baax ci liñ fiy dégg ci moom njaay basma la ñu ngi kontaan bu baax daa mel ni yaay booy yi ñu ngi ci yàq ci yàq gi yaay booy ñu ngi leen di nuyu di wax ni bool yi moom rafet na lool waaye lañ. xanaa dañ koy tënk rek ndax temps bi waaye bu baax la. Mhm. waa man la Oumy Niass Ndiaye Basmala moom liñ mën a wax ci moom bari na suñu koñ bee la dëkkoon. waaye tax ñu topp si ko ñëw ba xam ku Amir la ku am yërmande la ku nangoo susu wax ay garab yu la yore di ko jaay ku baax la trop trop trop moo tax ñun ñu topp si waat ko ba fii muy def safaram gii nag du c'est pas la première fois na def chaque at def ko ci barke karim ku baax la ku social la kuy dimbali nit la teyit ay garabam ku ci oyof la wax dëgg yàlla bas ma wax ci bari na xanaa dañ koy tënk rek ndax yëkk añ beeg yooyu waaye yàlla ñu yàlla may fekk rek mu yàgg kaa fekk ci barke alxuraan ku baax la ay garabam it garab yu baax lay joxe wax dëgg yàlla man mii sax daf may jàppale ci lu bari ndax damaa jabet émorit lépp da koy garab yooyu yëpp da ciy dimbale doomu aadama yi tey ay yëfam jafewut daal ñu ngi koy sant daal di ko gërëm di ñaan yàlla li mu mën ren bu déwénee yàlla na mën lu ko ci barke alxuraan. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax soxna Oumy.